sama uh, fiancé bi tey anniversaire am. ah man de maître dama am problème. defal ko belle surprise bo xamanteni mo ci boppam daf koy jëlé kaw. est-ce que yow am nga confiance ci waa ji. non yow yaay baadoo la ak lima def ci yow lépp. loolu tax la yaa bon yow sañ nga maa def ni yow. Assalamualaikum, assalamualaikum, sama guys, sama xarit sama Abdou jami. man la sen maître Maimouna ma fi dellusiwaat ak yu bees cette fois ci nak gor la len fi indil ma bëgg nak mu wax ñu ak mom, mu wax ñu ay jalooreem ak yëppam na nga def señ bi. oui ça va soxna Maimouna may ci si may maa sant bu baax. Yalla na jamm yag, dañoo bëggon nga wax ñu touti rek ci li nga xamanteni mo tax nga set suñ. oui bon aujourd'hui mom je suis là par rapport ak mon fiancé quoi Ça s'appelle Zeyna aujourd'hui, bon, je voulais des investigations par rapport à Arsène Digende, quoi. Mhm. Parce que, bien vrai que Zéna, c'est une femme. Bon, c'est une femme que j'aime, que je t'adore. Mhm. Parfois, on s'entraide, genre et tout ça. Mm -hmm. Mais, quand le coach Barma dit, Digende, ça parle de boulot. Avec les plumes par rapport à. yëpp yu may defal genre ak li ñu seek man ak moom yëpp mhm. ci lu duma ma ko jox lépp à cent pour cent quoi mais tey jii dama fi ñëw pour leeral quoi parce que dama bëggoon xam ba xam gérant il est fidèle ou pas quoi parce que dëgg lañ nekk nañ mhm. mais parfois xam nga damay gis yenn yoo xam ne nii je sais pas quoi ah, gëmuma nii gérant mi mooy loolu léegi dama bëggoon xam ba xam gérant il est fidèle comme sama gars yi ñoo ko dégg noonu mais man leen rek moo ma jaaxal nan ngay mënee am copine te doo am confiance ci moom oui ça parlait parce que Djigène, bon doit quoi tu ko xam quoi en fait. ah taxawal nak suis mom dama lay taxawlo parce que ñep bokku ñu yam ndax jigen ñu bax seen penku yaay te gëm ni bobu ngay wax nit ku bax la nak li nga wax ci oui c'est vrai bon elle est gentille elle est courageuse bon nit ku bax la et tout ça mhm. mais parce que. jigéen doo ko jox lépp quoi parce que tu vois quoi parfois da ngay seetaan yenn série xam nga mhm. parfois ngay seetaan yi ci mbedd yeeg affaire yooyu noonu mhm. ñaata nit nga gis ni kii trompé ni kii en fait doo ko bëggoon ñoom ñaar bëggante woon nañ mais on sait jamais quoi tey jii mën nga bëgg nit en fait tey jii ngeen dem ba si yàgg yàlla bu ne du ngeen am du ngeen aatu mais tey jii di nga bëgg nit en fait mooy loolu mhm, mais soo xam ba xam dafa fidèle mën nga def say investigation loolu dara nekk si parce que loolu day gën a dëgëral seeni seeni seen ànd quoi c'est ça essayer ñu maa ngi moom dama bëgg ñu gën a ya jàppalante xam ah, nga s'entraider xam nga essayer de réconcilier xam nga essayer de trouver des solutions pour suñu avenir xam nga c'est ça quoi loolu laa bëggoon ok ñi ngi rafetlu bu baax li nga wax tayit yaakaar naa ne góor gu bëgg takk jabar bëgg jabar ju baax it li nga def foog mu def ko ndax jabar dañ koy tànn dañ koy xool mais ci biir loolu ma bëggoon jël numéro xale bi comme ça ñu mën cee waxtaan ñu xool ba xam ndax li ngay wut ci moom mi ngi ci wala déet oui bon bugen ngeen bulen bu tamit bon mën la jox numéro bi nga bon ñen jéem a essayer de rejoindre c'est ça quoi mën la jox numéro bi tout ça xam lool mun je sais pas je suis fidèle ça pour jox le numéro bi lool du dara way jël nga jël numéro d'accord kon dañuy jël numéro xalé bu jigen bi woko légui léegi dañuy jël numéro bi comme ça ñu woko ok amul problème mom num tuddu sax mom Zeyna Okay, nuwoza allo oui na nga def soxna si ça va bien man ci jàmm ba yaangi am jàmm Ma ngi ci jàmm ba. Wa dama amone ben cadeau bo xamne dama la ko waroon indi. cadeau waaw waaye ji nga xam ne moom nga gën a bëgg ci sa àdduna ah. moo la yónnee fii cadeau mu war la koo indil ah, tur bi nan la man Zeynab ah d'accord waaw comme ni ma la ko waxee rek ki nga gën a bëgg ci sa àdduna moo la fi envoyé benn kado mu war la koo indil

mënoon nga xol de ndax xamna ni dal ki fi nek mom du élage ta xamna ni yit am nga ay copain ah nag li ni du yaay Zeyna man Zeyna ah, de mais Zeyna ci dëkk bi ah am na ah la ah. man benn copain laa am fii élage ah élage xam ma ah loolu daal yaa ngi ci mënoon leeral bu baax pour ñu jox la ko mais comme nee nga bi kese la mhm. te nee naa bi man xamatuma ci dara taa juumuma de mais yow kii coupé nañu di <laughs> ah la coupé quoi coupé nañu di oui bon vraiment mon discours bi discours vraiment ça me prouve que elle est une femme fidèle elle est une femme ouverte vraiment je t'adore beaucoup naa trop damay ñaan y rek xam nga li ma bëgg yàlla na ko yàlla def que na yàlla def lépp mu baax quoi que je na yàlla quoi c'est ça quoi nit ku vraiment en tout cas content naa trop pour toi. ndax xam naa ni dute nga ba bëgg a dee ba tax li tax nga ñëw fii tey jii lépp leer na defe naa war nga am contact contacté gu neex a neex a neex mhm. je de toi yaay kon yéen a ko gisandoo gis ngeen émission bi tay aujourd'hui def nañu lu formidable def nañu lu neex jigéen ñi tay defar nañ seen bopp ba mu baax setal nañ seen bopp ba mu baax te lii laa bëgg saa bu ñuy def ñu di ci am ndam ñu xam ne jigéen ñu baax ñaa ngi fi. tay daal kontaan naa trop ma leen di bàyyi nag ngeen di commentaire di aimer di partager wax ci seen xalaat pour xale yu jigéen gën a xam fi ñuy teg seen tànk ndax góor gu baax am na ni jigéen ju baax amee kontaan naa trop ñu bàyyi leen ba beneen yoon merci beaucoup léegi nag. xool nga gis nga ma lay ñaan leen mooy nga partager te aimer